المقصود ظلم وظلمة فقام بسيف الهم بالحر مجرده ñu Serigne Aline Gueye mu ni Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu daa ñëw fekk mi lëndëm ne ña daan ubbi làmb mu def leen ni élément teg ne ndeysaan bocciwul jaasi ñaw ko xalimaam ci la weccee ko ñaw ca jaaseem orienté ci nit ñi ba foo dem fekk mu samp fa Maodo moom fa jaahada fiiha bi siyaasati wan nada wa ilmin wa xilmin fahtadaa kulla maatadi ñu ni Sëriñ Aliou mu ni Cheikh El Hadji daa ñëw ndeysaan xoolal samp jàkka yi yaa ngi jàkkaam yaa ngi foo dem si a jàmbaari tool sañ naa xuuyu jomb tool baa ngi waaram yaa ngi mbay mi rafet na kaar na buur yàlla dolil koy ngërëm ndax ko mba moo tax xoolal fasaarat zawaaya fii quraha jamiiha mi laa am di faw jin na wa sujjadi ñu ni sëriñ ñoo mu ni te bu ñu jullee ba pare lal mbalaan ma naasiril xaqi bil xaqi ji dal li aswaati fii kulli yawmin wa laylatin dawiyun la daa kulli zawaaya wa masjidi moo tax sëriñ Babacar kii daal faaw ma delloo ko njukkal dal aja qalbi min xayalin qad sara qad sara wa sabani qad jafa tayful kara aja qalbi min xayalin qad sara qad sara wa sabani qad jafa الكرام بين هدى قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى هدى قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى ma ni ko sa maam Seydi Hadji Malick amul taalibe naaw la laam ma lu tax man leen ki jël doomam jox la defu la taalibe naaw la la def mën ngaa gërëm nag taalibe ba kontaan ci moom bëgg ko sopp ko yëkkati sa doom jox ko ngir bëgg am ci jikko ja moom la Seydi Hadji Malick diggante maamu kii ak moom Seydi Hadji Malick mu góor gi El Hadj Daouda Dia mu yëkkati soxna ummu am nañu ko déggoon ñuy soog ak accès tax may wax muy doomam mu dénk ko ko mu am ca ñaar muy sagar ja ak faj ja kon kii dafa jaxasoog deretu Seydi Hadji Malick yamu ca nag mu am jom nag pour toog rek di course ak der dafa am jom jom boppam di liggéey waaye mani mënees na laa toggal yàkkal la ràccal la rëndal la mën nañ sax donc sexal la waaye sàq meeg wanaasu nag yaa koy defal sa bopp yooyu xeeti jikko nag nga yor ko fa tabaarakallahu allahuma laa adurru tey caddu jàpp nag xam nga lu tax da ngaa taala sa sa sa baay sa baay nee na gone bu bëggee gudd fa na tàllal loxom ñii fi toog ñëpp xam nañ yow tàll nga sa loxo foo dem ku fa ne te nga xam ko te muy mbokku taalibe jàppale nga ko dimbali nga ko te laata ngay dimbali ñooñee fii nga jëkk dimbali lu fi xew xam nañ ko yow fii mooy Tiwaawan yow tam lu xew fii rek xam nañ ko fii lu fi xew ak loo fi def ak loo fi taxawal ak loo fi taal ak taal te boo fi tàllal jumaa joo fi defar terrain boo fi defar xale xale yi fowukaay boo fi defar lépp Tiwaawan yëg na ko nit nag bu nekkee cim réew di def lu baax nañu ko wax ci kanam kanami bokkam wax koy ci kanamu ña nga xam ni ñëw nañu fekkee jataay ba man sopp naa la bëgg man sama xarit nga wallahi barke Seydi Hadj Malick danañ toog ba deux heures du matin wala minuit mu wooma ñuy waxtaan te lu ñuy waxtaan damay jël xam-xam ci moom di ko jariñoo te bu ma jariñoo ba mu ko jëfee mu sant ëskay doo wax kenn lenn mu jëriñoo ko mu sant acam ëskay rek lay sant yal na yàlla guddal sa fan nga def ñaar nag muy Touba ak Tiwaawan te sa maam Abdou sa baay Abdou kii wax ne Touba ak Tiwaawan ñaari dawla lanu fii dawlatin te warul wallahi kooka xamul na ko wax yéen ña xam na noppi moo di la xam ni faddalal ali moom ca loxoom la newul ñii ñaar seen dëwla jiitu na tey loo bañ bañit du fi jóg waxal ba xottiku yaa malcuunu yaa xëttu xol yow doo jullit doo ko lu xam loo fi doon ba di wax soo bàyyi wul lii nga ne yàllaay ki lay toroxal tuubaak tiwaawan ñaseen jaamal ak cenaba kazaaka laayeen wa kum ci rek loolu def nga ko waaw loolu boo ko defee nag ba kenn ku ne jóge ci kër goo gii ñëw fii fekk si la sa jikko la yal na la yàlla taxaw dafa fekk ni nag ñun bu nu duggee kër si Seydi Hadji Malick du ñu joxe loxo bala ñuy joxe loxo tagg yonent bi moo tax bi nu duggee ñu tagg yonent bi waaye la sa nijaay sa baay sa xarit sa soppe muy ala sa sëriñ muy El dëkk fii nag ci Jolof ndeyam dëkk fi mu dëkk fi nag déggoo man ci biir waaye man la El Hadj moo la jur mooy sa nijaay te moo la yar ndax maam sa féetu moo la xamal yoonu si kër si mat na door a sëmp kër. amoo ci yërmande morom te yow mit amoo ci yërmande morom de doo denc ci ci dërëm juróom te yow doo denc ci dërëm juróom te yaa ko sopp sa rob ko sopp yàlla nga ko soppul yàlla doo ko tabaxal leen waa wax na ko léegi alquran ji daara yi ni nga jàppale ak ni nga leen dimbalee yal na la yàlla taxaw yal na yàlla sàmm ku fi teew yal na fi teew déwén aajo bi fi waay indi yal na ko yàlla faj départ rek ni maa nga jëm mbalaxe te yaa ba ja commencé na départ rek ni maa ngi jëm mbalaxe looy wuti guddi yonent yàlla Muhammad ku la fa woo si ñaax na naa Alioune Dia tuyaa ba commencé ba ba ngay toog ba ngay dem te kat kaay ma du yem ci yow de ku yow bokk ci tuyaa ba ji ndax màggal yonent yàlla Muhammad li nga def yàlla na nga gudd fan yàlla na nga fi yàlla na nga fekk lépp. bëggul ko tudd turam ak imaam Abdou Bane ak Serigne Massala Thion ak El Hadj Mamour yebal njaba njaboot gépp waa Touba ka ñu siyaare. wax nañu ni li nga def ci diine ji du ka dong nga ko defal réew mi nga ko defal daara alxuraan jan fa taxawal itteel na teg nga fa sa tànk def fa sa alal néegu bi yàlla ba fa taxaw sa alal taxaw na ca sa jëmm taxaw na say bët gis na ko ba nga ñëwee taxawoon noonu waaye ba nga ñëwee yëkkatikuwaat noonu noo ngi dox dox googu nag di jax li alaj jaww ji ja am ci mbalaxe ak comme ko bokk Seydaaji Malick ak ak sa bokk yëpp yàlla bu la ci kenn gañe tey ëllëg yaa kooku àndal waa Touba ka bëgg njaay bii nag dañ koy ñaanal yàlla dañ koy ñaanal yàlla ànd naa ki ilimaan ak bilaal bokk yëpp bëgg na ñëw waaye mbelexi yàlla yoon yi doon ñuul kukk yàlla ñu ko fuddal am nañ ci yaakaar nag wax naa ko ni ko alhamdulilah ma de mosuma teew mbelexi dawal naa oto wër réew yëpp ba dil ci waat di ilimaan di sëriñ daara waaye mosuma ñu mbelexi lii la yàlla dogal daado mbay kawlax ma sàmb ba fa ne ñoo bokk ndey ak bàyyi ak oustaz góor borom xam-xam daje nañ fa bàyyi daado gaañu kon ñu ngi lay seereel jëf ci ci yàlla ko suñu borom nangu ku la bëgg a gis daal yàlla na la yàgg xool tax soo gestoo yàlla na nga gis ci dara yi sallallahu alayhi wa sallam waa Touba Kafaal ñëpp ngi liggéeyu dëkk ba góor ña mag ña jigéen ña ba nga yëg si daal siggi nañu te it yéemaloo ko ci noonu réew mépp nga ko defal yàlla yàlla na ko la asalaamaaleykum mi nga xam ne ci njabootu Serigne Fallilou teg na fi tànkam daaw teg na fi daaw tànkam jépp te léegi yaakaar naa ne it mi ngi ñëw si Abdou Fata mi nga xam ne mooy péeteem parce que wolof Njaay nee ragal day ragal péete day xam xañ wërsëg moom mooy moom mooy moom mooy péeteem kër sëñ Fallou moom moo fay péeteem loole nag da koy jëf ba digganteem ak sëñ Abdou Fata bu ko yàlla dogalee waxtu màggal ak waxtu mën a doon mook sëñ bi ñooy bokk defandoo li ñuy defandoo yëpp ci jëmmam loolee nag sëñ Abdou Fata daana at mu jot dana fi yónnee daamam xaadim sëñ xaadim mbakke mi ngi ko yónnee di ñëw ñun ñii nga xam ne dañoo bokk ci biir kër ga mënuñu ta du dugg ci dëkk ba te new ma cheikh nu may def fu may dal at mu jot it nii may def maag sama mbokkum taalib bi mii nga xam ne kii Alaaji Géey moo nekkoon bëgg nekk suñu Alaaji Baara nii lañu àndee ñëw ci kër maam ak njawoot gi yëpp xamal ko nekk moom yëg gi mu yëg sëñ Touba ñun yëg nañ ko raw loola soxna bindum Cheikh Mamadou Fadal mu ngi ci yoon wi di ñëw kon yaakaar naa ne Cheikh Mourtala maam morom sëñ Mourtala am sëñ maam sëñ Mourtala Mbacke ndaw mi ngi ñëw sëñ si sëñ Cheikh Anta moom sëñ Modou Roxee ndawam mi ngi ñëw moom ci boppam moo daan ñëwal boppam waaye jamono daa dem ba yaramam sutante ndawam day ñëw euh, rajo bii ñii di jël ñii kenn ci njabootoog sëñ maam Cheikh Anta muy Fallou Galassi la moo leen fi yabal kon xam nga loolu nga wax ne am na fépp fépp moo waral lii kon moom sëñ Aliou moom bu ñuy wax ci moom sax day mel ne dañ ci ji ndax Touba moom képp koo xam ne dugg nga tubaa rek soo ma gisee la nga may njëkk a laaj ana sëñ Aliou mbaa nga ko dégg xet ma ñi nga xam ne ñoo yor jumaa yi Touba ji seen délégation yi nga xam ne li jëm ci tuubaa ca jumaa ja ci seen loxo la nekk kenn ku ci nekk ku ko ci ku ci xëy ne ma ana sëñ yu mbaa nga ko dégg ba ma lay waxee màggal yónnee dañ ne ma ñoo ngi ñëw kon li ci ba ëpp xam naa ne daal mënu ma ko wax lépp waaye yow moom bàyyi nañ la lépp daal euh, ñoom itam Kaolack la ñu nekk lañu fare kii Dakar la fare waaye kuy seen njaboot ñene woon ca daara ja sax dañ leen ñëw leen ngeen gàmmu ci bawuñu fa kenn ah sama beneen nijaay bi moo di moom yaramam ko mayut yenn déplacement yi pour ñëw bu fi waaye malgré yaramam boobu dafa jël otoom jël ay doomam ba def ci waaw te tey yàlla xam na ne yooyu woon naa ko bu yàgg waaye mu ne ma mënuñu daal nga am bés bu toll ni bés bii ñu cay yónnee rek su nañu ba laal njaboot geeg ñëpp rek ba bi naan ko maa ngi lay yeewi mu ne ma seex ma ca daara ji seex day welo welo bi wàcce na ko dama ne ko da nga ñëw fekk ma fii da ngay gàmm ji ah <laughs> ndeysaan ñoom itam ay mag lañ waaye bu liy jotee dañuy tëj seeni kër ñëw wax dëgg yàlla loolu lu rëy la ci noonu ndax nit day ami mbokkam tabaarakallaahu aji xaar sii di Ndiaye mële sama jigéen na Sidi Ndiaye bu Alburi Ndiaye ko jur mu ngi indi woon léegi ay teraangay aji sarax njaay bu siidi njaay ànd ak seen ñëpp euh, teraanga boo yaakaar nag rek def nañ ko ci a ah, muy ñoo xam ne ñoom it seen lépp rek ak sama mbir benn lañ sarax njaay bi mu nga xam ne moom lañ doon indil ay mbiram ay doomam ñëw nañ léegi ñoom Demba War Sall léegi lañ fi jóge waaye ña ca des ah, wax dëgg yàlla ñoom Seydou Aïdara ca kanam tuuti dina ñëw waaye kii nag moom aj xaar mooy rakki aji aji aji sarax moomu saarax da ko doon wax boo gisee ma gën laa bëgg nag maa ngi yow bokk Sidi Ndiaye waaye li nga mel ci Alioune Dia tax ma gën laa bokk moo yaa gën a tax ma téye sëñ Alioune Dia ah yàlla dogal na euh, ngeen fekk fii wala ngeen daje fekk délégation Touba Cheikh Diop bii ku ñëw tuubaa ci résidence ba ràññee nga ko waaw ku mu résidence ba rek ràññee nga ko ndax xam naa ne waa kër sëñ Fallou seen lépp lu fa nit di organiser Cheikh Meye ca ne résidence booba it lu fay dugg mbaa lu fay génn loxo a nga ca bi sëñ Baara nekkee nag xalifa moom sëñ Baara ak Cheikh moom doonuñu woon ñaari nit benn nit lañ mas a doon waaw waaw Alaaji Baara moo Cheikh mii waaw Cheikh kay tubaarkàlla la <laughs> mu ne mu ñuy def. Hmm. man bëgg a mu ne ko waaw waaw sëñ Baara tegoon na ko fu rëy. loo bëgg a dox Touba soo ko xasee ba jot bu ca waxati moom dana toppatoo lépp. man nag maak moom muy sama xarit bu àddina bépp ràññee ku ko gis Touba rek na ko ana sëñ Aliou waaye ku ma jotee rek na ma ànd Serigne Cheikh musta tardé fii daara dara dara sëñ Saliou moom muy wax yàlla na yàlla doole ay leeram toog naa ba ba ba guddi sëñ eh, eh, maam Cheikh Anta dikk fëgg sama kër ma jóg ubbi ne ko ah waaw maam Cheikh yow eh, gëjëwuñ ci rek lañ wax nañ ci téléphone bi mu ne man day sëñ bee ma woolu sëñ Saliou ma ñëw ba agsi mu ne def laa namm tey yëg na ba nga ñëwee barki démb ca waañ wa day dafa mel ni da nga fa am nga fa ay coono yëkkati benn enveloppe xaalis yu bari mu ne ma nee naa la jox lii boolu daa ma fi indi <laughs> ma ne ko ah man day soo damaa bëgg nga may ma ma wut lu ma ci teg nga jootaatal ma ko sëriñ bi mu ne ma googu ñàkk fulla na xanaa xamee woo ma ko nag sëñ Aliou <laughs> toll ni sëñ Saliou woolu ma ma ma ñëw fekk ko fa ma ko fekk mu yëkkati ne lii ne naa ko teg sa loxo yi ma di ko delloo xalaatuma ko kët <laughs> maye naa mu ne ma lii la sëriñ bi yónnee nag bu ma doon yow tey maye mu ne ma lal ko ci sa sa suuf yére rek ci sa armoire dootoo tàggoo ko xaalis yow <laughs> waaw léegi-léegi damay ñëw ma seex ñëw mu ne ma ma Moussa sëñ Moussa Niang boobu ne ma ah góor gi de dafa toog ba yàgg mu ne sama doom ji namm naa ko de ma ne kon dinaa dal di ñëw léegi ma ñëw mu ne lenn rek laa lay doye de damay ragal ne mbaa danga fii ñëw doo ma gis yow wutalu ma la bés wutalu ma la waxtu waay <laughs> loolu àggoon naa jeeg sëñ Salim saan <laughs> yu bari yow bari bu koy lijjanti mu xaw a nu mu tuddati danaan da koy wax maam seex ne ko demal waxal ma ko sëñ Aliou ba ca doon lijjëmam fi doon dégg wala mu soxlay tracteur walla yeneen da koy da koy sant maam Cheikh ak engrais yëpp su ma ñëwee nag bañ toppatoo ko ba mu yemb ndeysaan mu am ca mbégte mu rëy rëy rëy moo tax sëñ Saliou moom amuñu woon frontière waaye yàlla nag noonu la yombale yëpp sëñ Mountakha mi wër na ko moom mi ñun amuñu fa waxtu fu ñu ñu ngi ñëw rek mu ne waxtu sàngam ñëw leen te la ci ëpp sax day bëgg bu jullee ba pare nu toog waxtaan a waxtaan bu bokkaat julli tàkkusaan ma door a dem waaw xam naa ne délégation am wër na ma ne ñu ngi ci yoon wi ndax mosuñoo tardé bés bi daal yàlla defar na ko rek léegi la ma kii di dee na ma Habib Sakho nee na mi ngi tollu sagata bu bu Sakho ñoom ñëpp ñu ngi ci yoon wi ñu ngi ñëw ñëpp di samay xarit kon nag sant yàlla daal moo nu war ah délégation bi jógee eh, tubaaka kii yore appareil bi suma oto oto bu ma yor jaw njaay mi koy defar bu ci amee lu ci sikk lu ma cay contrôler it moom laa koy defarloo moom itam muy ku jub ku baax ku ëpp ku am yéene ci noonu ba jëmmi jamono ñoom moo apparenté bu ñu wax moor ñoo ma indi woon ca dëkk ba ma ñëw fa waaye am naa ca mbégte lool ndax wax nañ ma yokkute ga keroog ma fa ñëwee mu mel ni mbëla xelaane ma gën ma ne ko jaw yéen new yéen a nga ndakaaru di fa liggéey waaye bu leen topp rythme mu ndakaaru lu ngeen am tabax si leen ko fii toppatoo leen seen dëkk bii gannaaw ga nag jaaw na daal danga waxoon dafa mel dafa pikir gaañi léegi sàkket amatu fa <laughs> mu ne ma ku fa bëggutoon ñi ñaa ngay daw di xëccoo terrain yi lépp a ndox ma ñëw na courant ba ñëw na lépp ñëw na moo tax eh, eh, léeg-léeg mu am ma ne ko ah waaye lu fa xew rek mën naa ko yëg ndax boobu sama sama sama samay nitu bopp fa nekk su ko defee nag bi ma jotee barki démb ne ma imaam dafa bëgg a ñëw dañoo bëgg a ànd ak magi dëkk ba ma ne ko waaye jaay ñoom nee leen yéen na ji egg na yow yow boo ñëwee rek ñëw nañ waaye la yàlla mu dafa amul lu du ay jaabam te damay wax ne bëre fo rek la waaye kon daane nga rus nag loo fi wootee tey boo sañoon day réussir ndax waaye nga ca suuf di ñaan du réussir <laughs> moo tax rek soo toogee nag ba gis ba gis say say say kubal rek say bokk rek sa sa xel day dal doon yàlla nañu yàlla dolli sutura ngeen ñëpp maa ngi leen di gërëm Eh, di ñaan yàlla defal nu jàmm Alioune Sànq bi doom moom sànqe la di suñ doom waaye di ku baax ku ku euh, mën a jokkale waaw bés bii bu xewee lu ne la ciy daj ku ci war a ñëw dana la da nga caa war a dem ku ci sa loxo war a dugg day dem ne laa ah, indi ma yotti sa àll yi da war a ñëw waaw loolu nag mooy mooy mooy jëfi nit ku baax Malick jabee nga wax nii Malick suñu dooma waaw waaw wax waaye daf noo def kilifa nag moom ndax doomu sëñ Baye Dia bu kaw lax sëñ Baye Dia ku xam Alaaji Abdu Aziz Si xam nga ko <laughs> waaw moom ñëpp a ko xamee woon ak Alaaji Abdu su ko defee moom nag mu def nu kilifa lu muy dugg yëg nañ ko fu mu yendu ñoo ko fay yendal boo seetloo télévision yi doon wax ci gàmm gi ci gàmm gi bëri man léegi dematuma sax ñoom ñii laa yebal benn moom laa tànn moog Alaaji Maalik sama doom ji ñoo fa waxtaan démb sëñ Modou Mbacke ak naan ma dégg naa sa sa doom ji Mali wax ci sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima démb lu nu jaaxal de ah <laughs> waaw ndeysaan moom mii day moo ci doon waxtaan ba bi ma mu ne ma man day li may yëm ci li ma dégg sa gone ay nettali ndeke Cheikh Ibrahima Fall gisoon da xanaa kon mbënn mi ndax nee na Cheikh Ibrahima noonu dërëm dana tax ëllëg bàmmeel yi sori <laughs> dërëm dana tax ëllëg bàmmeel yi danañ sori <laughs> mu ne ndeke day bàmmeel yaa ngi ci biir géej ga waxuma sax fu bàmmeel boo xamul fu mu ne booboo sori te dara waralu ko lu du dërëm <laughs> gone yi waxtaan ci waxtaan bu yaatu kon moom itam bu ngeen ñëwee mu teru leen lu am sol la waaye noonu rek la yàlla yàlla dimbale di santaat ñëpp rek di leen gërëm nit daal amul nag lu du bésam sa bés daal ku la ci taxawle desalu la dara waaye ku la ko yàqal bu la yabutit xeeb na la <laughs> bés ku la ko yàqal bu la yabutit xeeb na la te yabeel nag gor su ne war ngaa fexe bu la kenn def man sañu ma ne kenn duma ma bañ ndax fañ may bañee xol la ne waaye kenn du ma yab sañ naa ko nag <laughs> ki nga xam ne nag sa bés bu ñëwee mu taxawal la ca nii dindil ne kooko du wutu laa yab xeebu la te bu sañoon nga mel nu ne kooka moom loo def lu dugal ko ci sa xol bii rek def ko ni sa bopp yaa defoo la war <laughs> ngeen xam ne kon yéen ñëpp tey ci tey fu ñu tolloon ak yéen ci cofeel dañ koy yokk waaw dañ koy yokk ndax nit amul lu du boppam nag ak bisam keroog bi may def appel bi moom mii moo fa ñëw fekk na ma déplacé équipe boo xam ne mooy gone yi way fii doomu mboxu jaww ñoom yi jógee Kaolack waaye bañ accès ba nga xam ne nu mu tudd dama leen kii moom bu ñëwee jox leen ko lépp bañ koy génnee dama ne bu leen génne kenn génne leen ko moom képp <laughs> ndax symbole la waaw loola it mooy lu rëy su ko defee nag yàlla moom mooy mooy suturaal yàlla nañu suturaal alaaj daawuda nag mayam waaye nag may ga day baawaan di dem waaye day am lu mën a lutut boppam taxawaay alaaj daawuda dootu ko defal boppam fii pas-pasam nag moo fii wéy lam jëloon daal fas ko ak Seydi Aji Malick te téye ko pas-pas baa ngi fi waaye taxaw di gàmmu taxaw di jëflanteeg ni ñu ñuy ñëw mënatu ko ñun ñi doon nag ay ay ay ay ay terrain lekk jax seen lekk jaxalam wala boog sunuy bàyyi lekk ko ñu doon ko ci ñoom ñoo war a am fayda ak fitu taxaw loola di wéy ah li ngeen wax nag nit ku ne bu yeboo rek yàlla may ko mu am jikko ju baax ndax jikko ju baax bu la ko yàlla xasee ba defal foo jublu mu yaatu foo jublu rek ñu yaatal la man noonu la yàlla defalee samay mbir waaye bu sa jukka baaxut waxuma la yow yaa ngi lor sax say sësëtaat bukki baa nga rek ku ne gàddee yat ña gàddu bukki defu leen dara waaye bukki yi njëkk yaa yàq nag jukkoy bukki ba koo wax mu ne ñaaw na saay saay na <laughs> yàlla ci yàlla musal si bor waaye yàlla moom mooy doxale noonu su ko defee maa ngi lay nuyu euh, ma Yacine Gueye bu baax waaw moom mbokk la euh, gàmm gi bu jotee mar euh, marché poisson la ne waaye ay jënam rek lañuy jëfandikoo fii li lim fii indi yàlla xam ne du jeex mu nit ku baax maa ngi lay jaale it boo xo boo xoo Gueye bi muy gaañu keroog fekk na maa ngi jëm si Jolof waaw maa ngi jëm si Jolof mu ne woon ku baax ndax moom itam foo foo mosaa tudd sëñ Alioune Dia wax ca jàmm rek waa wala dana dana dana la wax loo loo loo xam ne xalaatoo ko woon ndax xam na ne tey ñi bëri koo dégg mu ne Alioune Dia nangam ñaar rek koy waral ku soxat nga mbaa nga bëgg a toog fi mu toog rek wallaay kese yàlla képp loo rek a fi waaye defu la dara yàqalu la dara waaye li wolof di wax suppléant bu yàgg dafa am ñu muy gàñaram loo waaw toog te ñu ne yaay suppléant borandoo yaay toog bu xawee yàgg si rek nga gàñaram <laughs> waaye nit ñi nag la kenn mënatut sama am daaw dajaa doon def am na ci façon yi nit ñi mën naa mu ne boo doon xëy bët bu set nga fexe ba sab ceeb xonq cooy safu yàpp nga jox leen bu ñu lekkee bu suur ne waaye mu ngi bëgg a rey ak ceebam bi waay <laughs> waaye gor gor ñu mel ni yéen duñ fi jóg léegi léegi bi ñuy indi aji teraanga yi aji sarax yi saal bi yëpp a fees ñam ca daan boole ñëpp mu boole leen ci ña ca des toog daara ne bu ngoon a ñu ñëw ma ne leen lii mooy ay taxawaay li mu bëggoon mooy gàmm gii te mënatu fee nekk tey di defari miche wi yéen ñi fi toll nag mën koo defar di ko indi lii mooy ay taxawu kon nag kontaan nañ bu baax njaay kontaan nañ bu baax ci taxawaay yi. jàpp naa ne keroog bu ma ne daal la win laay def ak tey ku du ku yenn Tuubaa da nga dégg ay communiqué waaw foo tourné rek ma nga ca. ba léeg-léeg waaye woo ma ne ma waaye yéen seen Fallou Galas day maytu nit ñi jàmm mbëllëxe mbëllëxe daal la jàppoo Tuubaa gi tey ca la ma waxaat ne ma it incha allahu taala dana ñëw ma ne ko kon léegi bu ngeen gisee bu ñu gisanteeg Cheikh Diop rek ñëw bi dina yomb Fallou Galas nag di suñ kóllëre googu itam bu wér ndax lu nit di def ci communication Touba wax dëgg jaaree ko ci Fallou Galas dana tege ci yoon nga xalifa bu fa ñëw booy wax mooy toog ci say kanam di la jot di la ko jottalee kon yële maa ngi moom ñoo bokk yendu ci toolu sëñ Bass euh, Abdou Khadir yële cee dolli waaw ñoo ci bokk yendu waaw barki démb it bi sëriñ bi di joxe wata yi wata yi mu jox Baye Fall yi Fallou laa gis mu toog ci tànk sañ Bass yi di jottali nu mu demee Fallou nag moom maa ngi ko miine Daaru wax dëgg yàlla ki maam Cheikh Anta ba tax na lu mu dugg rek du ma dugg mu sawar ca waaye lu mu duggit maa ngi ci waaw maam Cheikh nag ni ko kii waxee moom Cheikh waxee moo daan ñëwal boppam ci gàmm gi <clears throat> daaw dafa waaj ba ci ba ci bëccëg bi ci la ko feebaram song yàlla yàlla fëgg boppam waaye moom gàmm gii daaw ci mos a yónnee mooy ñëwal boppam yàlla defit wax dëgg yàlla suma xaritu benn bakkan la fu ne ànd nañ fa lu nekk nag waaye sama digganteeg sëñ Saliou nag moom moo nekkoon ci bunt bi bu ma sëñ bi aajo woo moom la koy wax man su ma ne damay jëm ci sëriñ moom laa jor rek ne ko suba laay xëy ñëw mën a bisimilaay waaw sa wax dëgg yàlla baayam sëñ Modou Rokhaya ku am solo la ci yoon bi ànd na ma ak moom ñu seeti Ablaye Wade bi ñu dikkee Ablaye Wade ne ko ah <clears throat> bëri lu ma am Touba nag dañ ma ñaanal waaye sa baay moom daf maa jëfal <laughs> daanaa ñëw bëgg a toog ci barab fekk mu fees dell day jékki-jékki moom ci boppam mu ne diw jógal kooku jóg mu ne Ablaye toogal te booba tey laa ne président rek nit ñi daw di ma wuy si waaye am na jamono fu ma ñëw gars buuf ma <laughs> Ablaye Wade na ko nag cinquante nangam bi may def euh, sama agrégation maa yónnee ne nañ ma ñaanal waaye sa bàyyi moom dama ko bindoon leetar daan na ko leetar baa ngeeg man dem génne leetar bi photocopie ko jox maam Cheikh benn jox ma benn daal di ko nag la ma sa bàyyi ñaanaloon demoon nañ ba ne ma yàlla na nga moom réew mi tey maa moom réew mi daal ma sëñ ba sëñ jaadu la naqari nag waaye bu fi jógee ëllëg dama bëgg yàlla na ko murid yore <laughs> ma ne ko benn la <laughs> waaw yow ab tijaan nga waaye man bu fi jógee man Ablaye Wade dama bëgg yàlla na murid yore réew mi ma ne ko waaye ma ko amiin <laughs> waaye lu ngay wax benn la ci man maam Cheikh mooma noonu la baaxee noonu la amee taxawaay Jabbar फुलकारा